salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di nuyu Sénégal yi di nuyu àddina bi di nuyu ñëpp di leen ziar yéen ñëpp. waaw naa dama ko xalaat ci yaay parce que naa mooy yaay en parce que je suis malinké euh, d'origine guinéenne mais sénégalaise la sama papa moo nekk euh, guinéen sama yaay nekk sénégalaise ma juddoo fii ci réew mi nag màggee fii moo tax ma jël sama origine comme je suis malinké ma def naa naa mooy yaay mais man Maga Suba laa sant. dama ko jàng dama ko jàng ma mës ko bëgg nag waaw dama ko jàng mës ko bëgg ma teel a def euh, couture parce que ba ma koy def je l'ai fait très très jeune parce que ba ma commencé couture boo bëgg léegi mat na quatre ans kon nga xam ne couture dama ko jàng jàng ci rampe ci nag ndax daj naa ci lu nekk nag muñ naa mm, rampe naa ba yàlla yóbbu ma fii tey ba sénégalais yi ak fépp ci àddina bi di apprécier sama liggéey waaw maa koy sant yàlla nag. suñu originalité euh, parce que ñun au début spécialité enfant lu ñu xamee ñu def broderie à la main di def euh, spécialité enfant xale yi rek lañ doon ñawal au début xale kese kese laa daan ñawal comme léegi nag maa ngi ñëw ay ñawu mag ñu dem ba yokk liggéey bi ñuy améliorer di améliorer parce que code spécialité enfant war na mën a gën a yaatal liggéeyam ci mbiru xale ñu dem ci période Covid bi liggéey bi xawoon na dëgër tuuti sama employé xaw ma lu ma leen def ma dugg ci mbootu parce que période Covid bi dinañ judd dinañ boot suñuy doom même bu liggéey amut ma daal di dugg ci affaire mbootu mbootu bi tamit ba ma ci duggee euh, ñëpp kontaan ci. ñu jóge ci mbootu mu jóge ñu dem ci càkk peme yi léegi bu ñu duggee ci pa càkk peme yi nii après ñu ñëw ci ñu ne xale yi dañ leen di dàmp comme xale yi dañ leen di dàmp ñu ne leen def produit yoo xam ne c'est cent pour cent bio comme xale peau xale dafa peau bébé dafay fragile ñu def produit yoo xam ne c'est cent pour cent bio ñu def euh, euh, chantilly boo xam ne base bi karité kese la ak cacao ak tulukuuna tulukuuna moom ñëpp a ko xam ñu defar ko ba nga xam ne c'est très doux bu ko xale bi dàmpoo même yaayu bébé bi sax mun na ko def dàmp pour te dire léegi sax sama client yi dañuy naan produit yu cher yi doon jënd di ko diw seen yaramu doom yi bu ñu essayé bii gis nañ ci waaw gis nañ ci gis nañ daal baax na daal te suñuy produit la c'est africain c'est naturel ñun ñoo ko moom fi fii la jógee comprendre na léegi nag ci la ñu ci la ñu commencé def dàmpaayu bébé bi ci la ñu commencé di def ay coffret ñu dañoo démarré ci bébé bi muy juddu ba bu muy màggee parce que bu nu nee bu muy juddu ñu ngi commencé ci dàmp bi ñu ñëw ci càkk yi ñëw ci mbootu yi te bu mu bu juddoo rek age boobu mun na ko de zéro jusqu'à nu mu nekkee mag mun nañ ko di ñawal comprendre nga kon nga xam ne naa mag a suba fu mu commencé di accompagner bébé bi ba nu mu nekkee mag euh, kii bu gudd lay doon parce que am processus processus bu gudd lay doon waaw parce que léegi ba nu demee ba commencé chantilly bi ak caq bi ak euh, mboot yi ñu ne ah léegi dañuy def ay ay kii pak pak bi exemple tey lu tax ñu créer pack bi day am ñoo xam ne dañuy joxe njëkkee dañuy dañ leen may njëkkee pour bu ak ak ñoo xam ne dañuy joxe cadeau de naissance te en plus euh, dañ ko def c'est tradi moderne exemple tey mboote bi tey bu fille bi laa leen di présenter parce que dañuy def pour garçon pour fille ak euh, couleur yoo xam ne c'est unisexe parce que ñoo xam ne dañuy joxe cadeau te duñu xam sexe bébé bi duñu xam ndax góor mooy ñëw wala jigéen mais motif yi ñuy def ci biir am nañ façon motif yu bari comprendre léegi bii nii mooy nekk rogontaay bi te rogontaay bi dañ ko def de telle sorte que deux mètres lañ ko def tissu bi diisul oyoful c'est confortable te c'est bien décoré en plus façon motif yu bari lañ ciy def am na couleur jaune kii rouge rose orange bleu ak mauve wala noir aussi yooyu yëpp dañ koy def ci couleur bu ñuy décorer mboot bi ça dépend ci couleur client bi nu mu ko bëggee daal moo tax ñu defee ko noonu ñu ñëw ci cakk yi xam nga cakk moom dafatuñu càkk càkk yooyu yooyu yooyu ngay ni gis léegi ñu ngi ci peme yi peme bi ko ko gis xam ne peme original la lii nii ko gawe bi c'est bien parfumé xale bi bu gallee walla yooyu euh, lii day tax du xeeñ moo tax ñu defee ko nii léegi nag chantilly bi moo nekk nii pour damp bi ak diw bébé beeg yooyu ba ci yaay ji mën na ko diw comme wasin bees genre yooyu moo tax ñu créer chantilly bi yamuñu ci loolu ci produit naamaga suba yi ñu ngi ci ule de coco 100 pour cent bio ñu ngi ci euh, tulukuna bi ñu ngi ci ule de coco yooyu yëpp ñu ngi ci yemu ci loolu léegi ñu nekk ci dàll yi ñuy def ay dàll euh, dàll yi ñu def accessoire pour xale yi parce que ku ñu jaay robe foog naa war nañ ko mën a jaay dàll dàll yu rafet euh, pointure yëpp c'est dispo robe yi nag moom kenn waxaalewu ko robe moom ñëpp ñu ci xam gis ngeen broderie yi broderie yi set la ñuy def bien rafine ak finition surtout suñu finition on respecte les finitions fii broderie à la moom ñu bari xam nañ ko ci naamaga subaa gis ngeen broderie à la main yi ñu ko defee c'est bien propre et bien fait euh, comme ni robe bébé yi ñoo ngi def âge yëpp di def euh, ay robe yoo xam ne tamit ay robe de exemple ni ay robe yu coton yoo xam ne mën ko mën nañ ko sol fépp mu ngi nii comprendre te fàtte naa ek dellu siwaat ci pack bi lii mooy pack bi pour ba leen di joxe cadeau de naissance yi mu doon wax sànq ci affaire mbootu yi càkk bi huile yi euh, ak euh, chantilly yi mooy mooy pack bi ni bi ñuy def nii pour bébé bi robe yi aussi ay robe exemple tey robe matinale des fois clients yi dañu koy laaj ñu def ay coton yu léger parce que jour fête aussi Euh, suba gi nii xam nga day xaw a tàng des fois xale yi jaabante beeg yooyu dañ leen di defal ay robe léger ñu ngi yëngu nag ci lépp ci ay pantissé wax euh, coton brode ci yooyu yëpp la ñuy long yëngu même tissu africain yi comme lipp yi tout ça dañ koy def euh, di def vax ñu ngi def wax yu nii tamit comme wax yi yooyu yëpp ñoo ngi koy def ñu ñëw ci ñëw góor yi aussi ñaw góor yi comme yii c'est des chemises en jean ensemble lay doon ak vax yi yoon ñu ngi koy def bu baax fii ci naamaka Naamagasuba euh, di def euh, ay ensemble góor yi ak jasner mën nañ def dañuy def tamit ay fil à fil ay ensemble góor ak ay tissus anglais yi yooyu yëpp ñu ngi koy def léegi nag euh, ba yemuñu ci loolu rek léegi xam nga client yi tout le temps duñ doon gisee suñu liggéey nuñ ko liggéey mu set tout le temps dañu ne pourquoi doo leen def ay ñaw mag léegi ñu ngi def ay prêt à yu mag yoo xam ne sa simple yoo xam ne mën nañ ko sol partout te coton lii exemple jean bu la ñu travaillé ko ak euh, pagne ñoo ngi koy def fii ci Naamagasuba di def ay ensemble comme genre yi style bi day ànd ak ay sœur lii mun nga ko sol fépp te c'est du coton c'est doux te c'est pas lourd euh, comme genre yi. grillé, tout ça. man dama bëgg style boo xam ne c'est très original parce que suñuy tissu dara dàq ko suñuy pagne tissé ak suñuy lipp loolu c'est c'est africain yooyu vraiment dama ko bëgg ci sama liggéey daal parce que dama bëgg originalité ci diggu daam yi samay client dañ ma wóolu booy liggéey liggéey lu baax foo fekk dina foo nekk dina la fa fekk waaw parce que li may liggéey dama koy liggéey ak xol parce que dama ko bëgg boo xoolee des fois sax damay naan affaire bi du xaalis loo xam ne dama ko bëgg sama xol la parce que xale rek nga solal ko lii mbégte bi muy àndal mun ma leen ko sa wax parce que lendemain fête man des fois damay kontaan ba damay jooy parce que parents yu bëri suñu solee seen doom ba ba mu rafet journée bi yëpp suma ma su ma sama liggéey nii coon bi sa dootuma ko yëgati xam nga lu tax parent bu nekk daf may photo yónnee photo doomam mais damay ému damay kontaan ba mënuma sax duma sa mën wax bien habillé par Naamaka Suba loolu plaisir la ci man waaw kon nag des fois damay naan client yi tamit ñoom ñi ma wóolu aw ma seen fay parce que fu nekk la ñuy jóge ci àddina bi waaw te duñ ma xam des fois da ngay gis koo xam ne dafa may woo rek ma wax ko prix bi wax ko robe bi sans mu calculer daf may envoyé rek ma jënd tissu ñawal ko ko jox ko GP mu yóbbu ko te loolu du benn du ñaar fépp la ci àddina bi ba pare nag ci kanam. Euh, boutique dina ubbi parce que am na boutique bu ubbi woon Mali daaw boobu euh, dina ñoo ngi leen di préparer benn collection bu amul fenn Bamako naa maga suba kese la ñuy jaay am na buy ubbi biento euh, Guinée waaw am bu buy waajo ubbi aussi Abidjan loolu yëpp ñu ngi ci en Europe ñoom li ñu gën a apprécier mooy mboot yi surtout mboot yi ku ma ko yónnee ah day woote ne gis naa keneen ku ne ku boot doomam moo ma jox sa numéro doom sa numéro mbu sa numéro téléphone te vraiment loolu j'en suis fier. léegi nag ku ma bëgg a jot euh, day woote ci 77 504 11 53 beneen numéro bi 60 78 448 73 73 waaw ñaari numéro yooyu yëpp boo leen ci woowee rek di ngeen ñi ciy jot. ñoo ngi ci réseaux sociaux yi. am naa page boo xam ne dama bëgg ñëpp di ko aimer tout le temps mooy Naamaka Suba euh, sur Facebook am naa Instagram ñu ngi aussi TikTok waaw Naamaka Suba l'officiel tout ça yëpp am nañ ko dans le net. ñun chaque année dañuy génnee lu bees mais duñ ko wax nag parce que surprise la ci clients yi <laughs> dañuy bëgg a defal clients yi chaque jour dañoo bëgg daal Naamaka Suba di leen bett fa feneen fu nekk daal waaw ñu ngi préparé nag collection boo xam ne amul fenn pour tabaski. en plus tamit sama client yi tout le temps dama leen koy wax ñu teel a ñëw parce que fii dañuy teel a arrêté un mois avant les fêtes lay clôture euh, korité tabaski même rentré rentré ñu ngi def ay ay pack yoo xam ne dix robe la ñuy def pack bi wala douze robe à des prix bien abordables te c'est original ah dinañ xale yi dinañ sol ay robe toute l'année scolaire yoo xam ne man maa koy def naa maga suba elles sont bien habillées en plus parce que robe yi du gaaw xotteeku c'est bien cousu ak euh, ñaw bi ñu koy ñawee ba mu set tout ça loolu man dama ko mos a kii ah. Naamaga Suba le même style des enfants on vous accompagne durant toute une vie waaw parce que ñu ngeeg yéen bu ngeen xale yi bu ñu juddoo ba duñu màggee léegi bàyyi ñu xale léegi bàyyi ñu waajur xale yi